koy xeexal boppam kenn du ko maye quoi non ngeen surtout ñu nekk Sénégal on ne peut pas être plus loyaliste roi ñu nekk Sénégal nañ yokk seen fulla yokk seen fayda li ñuy dund ñun dund ñu ko de dañoo bokk Sénégal dëkk Sénégal xeetoo Sénégal loolu moo tax mënuñu trahir Sénégal mais lu nekk Sénégal li ngeen di dund ñun dunduñu ko ñun ñu ngi fi ñu ngi si jàmm gis nga da nga yeewu toog sa balcon paysage bi tout vert kenn du yuuxu kenn du la déranger yaa ngi sa jàmm di lekk ba suur di naan ba màndi di liggéey weekend bi nga relax xam nga man namuñu dara ko ñun namuñu dara mais nag lii bu ñu sañoon suñu dëkk lañ koy am duñ ko am dëkk jàmbur suñu dëkk lañ koy am toog chill xam nga cool xam nga lii ni ñuy dund nii dañ ko war a dund suñu dëkk loolu moo tax ñuy rey sañu bopp pour suñu dëkk am opportunité yi ñu doomu aadama yi ñeneen beneen dëkk may ñun suñu dëkk mun ñu ko may loolu moo tax ñuy rey sañu bopp parce que lii nii fi am nii war naa mun a am fépp c'est juste une organisation ak ay doomu aadama yu sàcc alalu seen askalu alalu askan te ñun dañoo tàmm sàcc dañoo tàmm triande dañoo dañoo tàmm corruption loolu moo tax mënuñu am dara tu mais lii lépp ñun war nañ ko mun a am ak ay njiit yoo xam ne dañuy ñëw toog ne duñ fa jógee mu ñuy ñëw dañuy yoot balaa ñëw dem il faut nga buddi seen maam sànni ci biti pour ñoom ñu mun faa jógee loolu tamit c'est triste xam nga ay ay affaire yu la tu vois donc ba ba nga xam ni Sénégal depuis belle lurette njiit mënu fa jóge rek dem yoonam te du am ay moor xam nga loolu tam c'est catastrophique am nga ab dëkk boo xam ni dangay ngay fal nit mais balaa moo dem il faut mu ray ay nit quoi il faut mu ay nit lan loolu fu ñu ko teg fan lañ ko teg te ñii di fal seen i njiit ñii jóge fii di dem seen yoon te kenn du dee mais chaque jour ñun suñuy njiit balaa ñu faa jógee fa la ñuy nekk di siisu di bañ ba pour ñu buddi leen problème la il faut ñoom ñu rey ay doomi aadama pour ñoom ñu mun fa jóge mais c'est animal ça loolu boo xoolee c'est l'esprit animal gars yi ils suñu njiit yi c'est des animaux c'est des animaux sauvages tu vois et ça loolu dafa gàccalu loolu dafa ruslu quoi mais sa waay loo moomul bul ko jël loolu di nit ki da ko war a di jàng loo moomul bu ko jël ay sàcc alalu jàmbur sàcc alalu réew di ko noosee di ko foowee di ci tëddee ay jigéen tu vois booy c'est pas c'est du lu rafet du lu rafet en fait tu vois nit ki nit ki da nga war a doylu li la yàlla may nga lu ci bañ a jël loo moomul loolu man pour man c'est pas difficile ñu fal la ne la cinq ans nga def benn cinq ans ne la cinq ans nga def benn cinq ans nga jóge fa dix ans ak sa ginnaaw bandang def sa benn retraite boo xam ne soxlul ngay dem France soxlul fenn sa dëkk ngay toog nii di njaax gars yi di la romb ay eh, moo la bégee bégee te nga newoon président génn di football ak boy yi wala di foo ak boy yi gars yi kontaan ñu ne pourtant ki nekkoon na fi président comme yeneen dëkk yi amul benn dëkk boo xam ne seen président day falu ba pare di daw ñun suñu dëkk suñu dëkk yi suñu président yi amuñu sax fitu nekk 17 ans wala 12 ans ci réew bu ñu paree di daw ah c'est triste c'est triste c'est honteux loolu noonu nit ku nekk war na ci mun a góorgóorlu nit ku nekk war na ci mun a yokk fullaam yokk ci faydaam ci waa xam ni loo moomul bul ko jël loo moomul du daganul yow nga lekk ko te ñun dañoo war di mun a am ay njiit yoo xam ni comme ni ko Ousmane ko waxee ah loolu mooy njiit man pour man loolu réyul loolu mooy njiit njiit waroo soxla alalu jàmbur alalu jàmbur du sa alal Ousmane ko mooy lu ko wax njiit waru bëgg àdduna ku bëgg àdduna bu ko jox njiit ku bëgg àdduna bu ko jox njiit parce que au lieu mu dem liggéey ku bëgg àdduna da ngay nangoo liggéey ku bëgg àdduna du wut lu yomb Sénégal na nga xam ni dañuy toog du ñu liggéey du ñu xëy du ñu gont yaakaar affaire yi ci ay doomu aadama bu ñu lekkee doomu aadama lañ koy jox bu ñu naanee doomu aadama lañ koy jox mais loolu c'est c'est honteux c'est honteux nit ki dangay jóg dem liggéey am sa yëf amal sa bopp ni ku la xool jox la cër respecté la loolu mooy dëgg loolu mooy yoon tu vois ce que je donc c'est ça donc loolu ku ci nekk war nga ci mun a taxaw ku ci nekk war nga ci mën a taxaw xam ni fii loo fi am yaa ko war a liggéey te un njiit tam du yàlla du yenentu Sénégal nag ak Afrique dañuy fal ay njiit yoo xam ne ñu foog ni ñoom ay yàlla lañ ay njiit yoo xam ne Macky Sall tey bu mu faloo ba léegi pour nga gis ko sax problème la parce que moom xam na li mu fi liggéey salte na xam na ni loxo yi dafa tacheté de sang xam na ni ay doomu aadama la rey moom xam na loolu donc tey mënul am sax benn fierté dox ci réew mi nii nii nii nu ko neexee la force foo gisee Macky Sall nekk ci oto muy dox noonu dafa am ay junni garde corps ci ginnaaw amul fitu génn dox nu mu ko neexee parce que xam ne ni lim fi def ay papay jàmbur ñi ngi jooy ndax seen pa seen doom Macky Sall la ko rey ñii seen jarbaat Macky Sall la ko rey ñii seen sët Macky la ko rey tu te loolu yëpp ay déception la gàcce la nit ki dafay day day day day day day gore wét gore wéttalu ko gore loolu mooy dëgg ñun nag dañ fi bugg ay euh, suñu suñu génération bi nga xam ne xoolal dañ leen former ci éthique ci déontologie ci bañ génération boobu la ñuy wër te génération boobu lu tax ñun ñuy ñuy jàppale Ousmane ko parce que on le voit dans si ci ñun loolu kese la toppewuñ Ousmane Sonko boote parce que ak ñun fa euh, am nañ ko toppewuñ ko ko alal parce que fekk nañu ko moom moom bu ñu xam Ousmane Sonko fekk na ñun ñu ngi ci kaaw bi di liggéey man j'ai presque fait presque vingt quinze ans maa ngi ci kaaw bi di liggéey dama mus a liggéey amul lu ma ñàkk dama mus a liggéey dama musa a faayit donc man si yaakaar bañ nañ ko ba sax Ousmane Sonko xaalis bi ñu koy jox sax ñu nekk ci kaaw bi ko koy yónnee donc ñun soxla luñ ko dara lenn kese la dañu am ay vision am ay rêve gis ni moom mi ngi ko réaliser te gis ni wan nañu ni moom buggul àdduna wan nañu buggul alal alal maanaam du alalu jàmbur jëlu ko parce que ki nga xam ne nekk nga euh, député déjà dañ ko ñu ko commencé nekk nga inspecteur impôt et domaine inspecteur inspecteur impôt et domaine Sénégal yëpp ay multimillionnaire lañ Ousmane Sonko benn kër la yor impôt et domaine ñu fay liggéeyee ñu ngi yore cent ay ay ay hectares hectares lañ yor Ousmane Sonko moom benn terrain la yor mooy këram googu. mu ne leen sama kër gii à part sama kër gi boo leen gisee beneen terrain jël leen ko mais gars yi ñu jël beneen terrain kooku lan moo gën a jub impôt et domaine benn nit liggéeyu fa am am benn terrain kër muy sa kër. te terrain boobu impôt et domaine ñoom ñoo ko jox Ousmane Sonko nee na moom amul beneen terrain c' est in c' est incroyable c' est incroyable te pourtant am na def na ko kooku rek loolu jar na jàppandu ba pare mu ñëw nekk député jël salaire foofu la ko tàmbalee jël salaire am xaaj ko ñett di ko jox benn pouponnière yi bii mu jox ko femme cultivatrice yi nga xam ni de transformatrice yi nekk Casamance et cetera et jël yenn nii jox taalibeeg yooyu ku def lu mel noonu kooku wan nañu ni déjà du nit bu bëgg alal di nit boo xam ne bu gisee alal di jëfru yàgg nañu ko won et lan moo ci gën a neex loolu noonu rek yàgg nañu ko woon et lan moo ci gën a neex Ousmane Sonko comme ni mu man j'aime bien man bañ dugub bu ñu wax noonu j'aime bien <laughs> parce que man bañ a dugub laa ndekkee ma nekkee Sénégal ñu ne boobu may jógee Sénégal bañ dugub lañ doon ndekkee ak café Touba malgré tout te te te dara munuñu teree day amour bu ñu am ak mbedd mi dara mënu ko mënuñu ko teggiloo tu vois chaque jour ñi ngi nekk ci mbedd mi ak lépp lu ñu mën a doon ñi ngi nekk ci mbedd mi loolu mooy ñun on a besoin de ce genre de président ñun bëgguñu ay président yu obèse ngand duuf mel ni ñay xam nga doo génn di funki di reesal di funki di doxat di reesal no président jeune comme ça mun a génn yor bal bi ànd ak gàngam xam nga dem di football géej wala nangama nang un dimanche loolu au nom de Dieu bu ñu ko falee Ousmane Sonko di ngeen ko gis di ngeen gis président buy liggéey ba samedi wala ba dimanche mu am benn kiyam weekend am dem tël jaay ba dem ànd ak ay nigasam dem ci terrain bi di football yi ñun président yooyu lañ soxla ay eh, monsieur le président mu ne yee booy passe bal bi ñuy joué loolu mooy un président loolu américain yi di def you know loolu mooy américain ñun noo foofu lañ toll ñun toll ñu ay président funki mel ni ñay di doxat di teg kenn xamul lan la ngay mer di pu di reesal di nee we don't need it you know need it ñun fu ne lu ñu soxla mooy un des président présidents ouvert d' esprit des jeunes young boys ñun loolu lañ soxla ñun tuñ ñii paa yi ni dafa jeexal booy ñun on a benn président bu am suñu génération tollook ñun même niveau tolloog ñun niveau d' esprit niveau de vision ñun soxlawuñ ay ay bun fokking bun fokking yi dafa doy booy ñun am nañ fi ay paa am nañ fi ay Abdou Diouf bu ñu koy xam ñun paa la bu ñuy xam Abdoulaye Wade paa la bu ñu xam Macky Sall bun tu waa ñun dañ soxla léegi ay young boy yi nga xam ni du sang chaud jeune nii xam nga munul tëb tëb Macky Sall munul lii munul tëb munul def ay munul munul tëb munul xam nga munul def ay ay assis debout munul Macky munu ko bu koy def di doxat buy def ñaari assis debout doxat foofu yëpp tu vois mais tey Sonko mun na la defal ay sport xam nga jël beneen giren bras cest à la tànk bi vum xam nga wàccee mais loolu mooy yow xam nga pour wane ni ñun ay ñun fresh lañu yor fresh booy bu ñu tooñ duñ fi amul baal nañ la dañ lay ñuus quoi tu parce que dañuy taxaw dañuy dañ ci dañ ci toll toll ci def ko weesu ko ba ko président yooyu lañ soxla fu mu nekk pour l' instant nag Afrique dafa war am président yooyu président jeunes yoo xam ni indifférent ci ay affaire àdduna yi ay ay oto mun nga génn sax booy sa benn kalandoo nga dugg ci dox sa dox ino parce que da ngay jël alal gi delloo ko askan wi soxla loo leen dara wutoo ci salaire mairie de Ziguinchor mag Ousmane Sonko dafa maye salaire am xam kooku tey wane na kooku dafa wane wane wane wane depuis impôt domaine mi ngi wane impôt et domaine sàcc fa jëlu fa ñu ñëwati mu nekk euh, député assemblée nationale jël salaire am mayee ko mu nekk maire de Ziguinchor jël salaire am mayee ko mais kon kooku noonu sa waay <laughs> kon kooku day kooku mooy patriote kooku day def te yàlla tax loolu lañ soxla loolu rek lañ soxla soxla wuñ leneen bu weesoo loolu comme ni ñu koy waxee gars yi il faut ñuy déglu mais ñun nag moom comme ni lañ ko waxee ñun ñun dañ focus focus sur l' essentiel lañ focus nekkuñu sax ci ay détails man wax naa leen ko nee naa leen duma ma déglu live nit duma ma déglu live intéressé wu ma live kenn laa dul déglu kenn man gars yi ñoo may déglu di tontoo ko xamuñ dara mais duma ma déglu live intéressé wu ma suivre ma kenn dama focus si man sama bopp di déglu li nekk ci kaw li ñuy jéem loolu kese bu ma yeewoo maa ngi toog woo sama gars yi waa Niggas waa lan la nangam ak nangam woo bu ma avocat yu ma xam woo leen procureur yu ma xam woo leen wala ma dur leen